<laughs> non dama ne moom moo leen may accès si biir kër gi laa la wax ba pare ba ñu paree ci kër gi moom moo mujjee waat ci kër gi def grand ménage genn kër gi ñun ay xel lañu di xalaat nag dinañ xalaat bu baax quoi. bien déglu ma. mën na faa bañ a nekk xam nga nee ngeen woon Aziz ñaari caabi la am. du xam ngeen wax loolu ngeen wax n'est-ce pas léegi moom mën naa sax bañ a présent si kër gi jox kenn caabi ji na leen mu ngi si kër ga. te bu boobaa moom nekk fa woon. béti eh, lu mën a ne. dañuy waxtaan lu mën a ne. béti elle était là-bas she was there the whole waaw moom bokk na si sax mun naa mun naa joxe caabi Aziz dem leen mu ngi si kër ga moom du fekk ko si kirim ba loolu mën naa ne. mën naa ne mën moom tamit mu si kër gi ubbi leen bunt bi ñu dugg def la ñuy def loolu yëpp c'est possible xamoo leen ban la fi def. non eh, she she mën na am mu ngi woon mën na am nekku fa mën na am moo leen jox caabi ji ne leen dem leen mu nga fa mën na am moo ñëw ubbi bunt bi bàyyi ko tëju ko wàcc dem yoonam ñooñu ñëw ubbi dugg loolu sax nit ñi dañ koy def moom mu yor caabi ji dugg ubbi ne leen maa ngi dem. ne Aziz maa ngi dem Aziz nekk tëjal ma bunt bi booy dem mu dem bàyyi bunt bi noonu ba may ñële ak sa ñu dugg loolu yëpp c'est possible tout sa c'est possible li ka lii xew mooy bu ñu defee reconstitution des faits bañ ne nii kii ak kii ak kii ak kii moo si bokk ki ne man ma ubi buntu bi ki ne ma téye tanko Aziz ki ne ma ka jam ki ne bi ma ko yow ya jam ñetti ki nangam lolu kese moko ko léra mais bu kara li loolu xew liñu ñu xalaat rek lañuy lañuy wax li nga xamné mom lañu la ñu xalaat ne moo xew. wa légui li nga wax yëpp nangu nañ ko mais ñi góor yàlla di wax chaque jour bu fi ken confirmé laaj buñu ñu confirmé. waaw parce que bo confirmé déjà. loolu yaa ngi taxal nit ki te nit ki yoon si boppam sax mun a gën a taxal nit amagul lu ko leer si nit ki. waaw déglu ma fii moom fii moom bi bi may wax ni man mën naa koo confirmer te dama koy assumer mooy gis nga tey mën nga ne Nabou Leye nekku faak mu ngi faak dafa bougé woon ak fa la toogoon ak yëpp mais xam nga lan laa la bëgg a tegal ni moom am na moom mooy ba ñu paree moom la ñu woo mu ñoo tëj kër yi foofu laay teg sama baaraam dégg nga xam nga loolu lan la ko nit ñi xalaatee ne moom la parce que dañ naan souvent nit nit bu la jegee bu la rayee du la bëgg xool te dañ ne Aziz dañ ko fekk ñu muur ko donc loolu buñ ko waxee da ngay xalaat ne nit ku nit ki ko jege la mais crime bu amee ah dañuy oo xoola famille Aziz ñii ko jege ñépp dañ leen di oo ku si nekka lañuy ñuy mais moom la fait que ñu téye ko jël ko def ko mandat de dépôt yóbbu ko loolu yëpp am na lu si xew wala moom xam nañ ne am na lu mu xam ba léegi waxagul loolu mais que moom moo lii yoon kese ka man a leeralagum liberté boo tax mën a leen liberté provisoire bi ñuy wax nii sax ba léegi nii man ba léegi taguma Nabou Leye parce que affaire bi crime la boo xam ne dafa nekk crime bu lii biñ koy jàpp muy dem tribunal yéen a ngi gis nagam aji Sarr mii rek ba muy dem ba muy dem justice dañ journal yi ñëpp taxaw télé yëpp taxaw ñu wane ko mu wàcc ànd ak Gabriel Kane so robam bu ndaw mais imagine ñu doon may Nabou Leye pour liberté provisoire xanaa buy génn benn nit sax dina taxaw ne ka nabu avocat ñëw ne ma sama client dañ ko may liberté provisoire parce que moo tax waxu avocat yee ay yii yu bëri barki yàlla man gëmuma ko dama leen di wax rek man la ma sentir baa ngi toog ba léegi mais dama leen di wax am na wax yu bëri yoo xam ne gëmuma ko parce que am na yoo xam ne yenu maanaa ba ñu yóbbu Nabou Leye dañoo nëbboon seen kanam parce que dañ doon bañ ñu gis leen ñenn ñi man li ma setaan si télé bi ñu ne dañ leen di yóbbu mais xanaa buñ koy may liberté provisoire ta ñu tëj ko ba pare taxaloon ko si deewu Aziz Sénégal gépp mettit lu ko journal yi bindu ko xanaa benn nit dina fa taxaw téye micro am nekk Nabou sa sa sa liberté provisoire bi temps temps temps avocat bi na ko bul wax ñu dugg seen auto tej mu dem man de lool laa xam lu normal man lool laa xam lu normal de moo tax liberté provisoire lëbule bàyyi nañ ko sous contrôle judiciaire yooyu yépp tant que procureur yéen nga toog télé wax man daal damay jàpp lu ma mën a jàpp lu ma jàpp lu ma daxañ sànni sa mbalit ba man noonu man noonu laay doxee boobu ba léegi nag asalaamaaleykum bet li ci beti ma sister Silone ngi si jàmm how are you Zo how are you I'm good it's been a while yaa ngi jàmm bu ci loolu ne sant kay alhamdulilah sant biir beti euh, Betty waxtaan bi tey neex na de waaye dama bëgg a waxtaan ak suma si sa tuuti rek Betty. waaw basi. fu mu fu mu jàpp foofu la parce que nit moom da ngay xool rek li nga xam ne yow mooy sa mooy sa vision te yow li nga jàpp moo am mais mais cas bi soo xaaral soo xaaral soo. soo hmm. xaaral Betty li nga wax léegi laa bëgg a sont une minute rek. mooy li nga wax ni c'est pas normal mais li xew fi yëpp dara normal lu ci Betty il faut nga xam loolu Sénégal c'est pas un pays qui est normal. <laughs> léegi loolu la bëgg a waxee on a mal dina dina comprendre léegi xaaral léegi xam nga xam nga béti am na côté bu mu wax boo xam ne faaw ñun ñun ñu koy déglu tamit ñu comprendre bi muy waxee mooy def ne euh, Sénégal problème yu fa yàgg am sa avocat day génn taxaw suma client lii ak lii lañ ko toppee woon gisuñu si dara wala sama client gisuñu si moom dara dañ ko may liberté provisoire wala sama client amuñu droit téye ko même 24 hours ci biir te xam te toppewuñu ko dara mais Nabou Leye moom toppee nañ ko dara parce que buñ la woowee laaj la woowaat la laaj la rek am na luñ topp ci yow xëy na lañ topp ci yow buñ demee ba gisuñu ko si lañ lay bàyyi nga dem mais côté sama client dina comme avocat yi dina ñëw wala journaliste yi taxaw ñi di la tàllal ay micro euh, mos naa fi wax ma ne Nabou Leye ñoom mës nañ leen a yóbbuwaat ñu taxaw gars yi ñu ne loolu muntu nekk ndax journaliste yi kon ñu wane ko ndax bi njëkkee dem wane nañ leen affaire yooyu noonu ma joxe leen benn mandarga ma ne moment bu ñu leen di yóbbuwaat seen yoon bu mujj boobu noonu bokkul ak biñ leen defalee kagul yi kon xam nga deux fois la te am na yoon boo xam ne dañ leen a tëral ci biir pick-up yi man ba wax wax naa sax ba oto bi fi nga xam ne fi leen nagu lay dugg mais am na ñoo xam ne dañ ko weddi woon carrément Naboulaye mun nañ ko may liberté provisoire mu nekk si biti te benn journaliste du ko gis du ko dégg du ko tàllal micro tamit gars yi mën nañ ko def sax deux jours après ñu doog a mu doog génn ci biti ñu ne may nañ ko liberté provisoire mën nañ ko def one week one week ago ñu doog ñi nit ñi si biti doog ko yëg loolu yëpp mun na nekk si Sénégal Sénégal nag lenn rek moo fa am mooy benn affaire dafa am su fekkee ne. duñu duñu sos waaye dañuy yokk comprendre nga fi may waxee sénégalais du sos waaye day yokk gis nga bu dara amee bu nekkee one moom dina ko def three su nekkee four dina ko def eight mais dama leen di limal ñetti ñii nii ñett muy muy muy Aziz Dabala ak Nabou ak Wally dam leen ngeen laaj borom xam-xam yi ñoom seen tur ñaata chiffre la ak si ak chiffre yooyu bu nekk ñaata lu muy joxe moo leen di xamal ne gis nga Nabou Leye <laughs> Nabou Leye nekkul nekkul ne day ñëw rek toog nii gaay yi coow li nabu lay faaw coow topp ko ci àdduna te coow lu rëy lay doon te def defkatu ñaawteef rek lay doon même li ma leen di wax nii bu rëccee si bii sax leneen mën na ñëwaat lu gën a pire lii te da ciy bokk man maa leen ko wax man hélas nag man affaire bi nii nekkul damay ñëw nii rek di ci wax nii kese kese de li ma ciy wax dama ko xam. am leen ngeen nyom ñoom ñaata sifur lañ rek ngeen hol, ngeen xam sifur yi ñoom seen sifur yi lan lay joxe bari na ponkal yoo xam ne ñu ngi foofu duñ ci wax barki karim ndax ku ci wax da ngay daanu ku ci wax da ngay daanu ñu yag fi senegal ay lu xewaan da ngay gis mara yi ndaw yi génn nekk ci TikTok bi ñii taxaw fii ñii taxaw fi lan moo waral lii waxuñu si ta man nañ cee wax de. nee na ñu ngi koy menacé de na urgent.

dama ne am na mara boo xam ne daa am na koo xam ne waxkat la daa doxal boppam ba ci justice mu waxal boppam ñu ne ko demal toog mu dem joxe ay preuve dem leen ngeen arriéraat ngeen dégluwaat la ma leen waxoon ak lan moo ñëwaat tey waxi Mara Niass jooju bu ko kenn fuyal de bu ko kenn yaakaar ne waxi naxa sa xandang la de day fen wala day wax wax lu ko neex fu leer la ko teg Mara bu sëqatee rek am na lu tax du ragal de man nag samay wax moom damay wax ba pare rek mais man na dem ba ci kanam ñu ne zo waxoon na lii wala lan moo tax zo wax lii wala lu tax mu waxee ko nii man maa leen waxoon ne bëri na ñoo xam ne dañuy génn ci média yi di wax ba pare dañuy yëngu ci ay affaire u maara mais doo leen mës a dégg ñu yëkkati kàddu wax ko ci lii mais am na ci koo xam ne day toog ci télé di wax am na ci ñoo xam ne dañuy wax mais am na ci koo xam dafa solal boppam dàllam dem ba fi mbaxana doone benn te bi muy dem nekkul otoom la yóbbu taxi la jël te taxi bi wàcceewul ko foofu directement li ci des da ko dox demal boppam déglu leen bu baax la ma leen di wax ba ma koy wax ak léegi yàgg na def na trois mois right now mais duma ko mës a fàtte parce que lu ma xam la nit ki booy wax loo xam nekkul looy fàtte. gis nga wax bu ngay fàtte wala wax boo xam ne boo koy wax da koy jaxase mooy yow da nga ñëw rek jëluloo woon benn décision wax nga ñëw toog tey di taxalee wax jël wax gauche jël wax droite jël wax fële indi fii yëpp nga boole ko bu ëllëgee buñ la ko laajaatee doo ko xam mooy li ngay wax boo demee boo ko téewul jarul ngay wax te bu kenn jàpp ne Mara Niass li muy wax noonu du dëgg wala la mënoon da koo réer déedéet gis nga saabu du fóot du fóot boppam te ren lu mu jan-jan am na bu ko feree suuf waaw garab nag wow na fi kongu ñu xëy gis mu saxaat ay mu jabiwaat sax saxaat ay ay ay bantam yu tooy xepp te xamuñ lan moo ko waral waaw loolu yëpp nag mbir la mais gis nga kaaw na bu lee bii nii ku jàpp ne lu ndaw la sax yaa ngi nax wallaay nekkul lu ndaw te gis nga li ma di wax nii am na ñuy wax fii naan Naboulaye dina dugaat ci kase bi yéen gis ngeen gis nga Naboulaye lu ko génnee Naboulaye bu dugaatee rek xamal ne lam waxoon ak ñoom dañ koo deful de lii kay maa leen ko wax Naboulaye borom fit la de gars yi leen liñ wax ak moom buñ ko deful buñ ko deful virgule bu ci dañee virgule moom day dem toog jaral na ko mu dem tëdd li muy tëdd mais day wax lii man maa leen ko wax. buñ ko defee nag ba àdduna tukki du wax ba àdduna tukki nekkul moom mooy toog di wax lii tax ñu rey Aziz dabalaa mais le temps Nabou Leye nag mu ci biti moom képp koo xam ne ci famille Aziz Dabala nga bokk wala ngay dimbale ku bokk ci famille Aziz Dabala àdduna doo ko musa am ci àdduna ndax lii leer ci Nabou lay leeree Nabou moo xam lépp escalier yi ci moom la gars yi ci moom lañ jaaree yéeg Nabou Leye moo tax ñu def lii lépp ñu def boo yooyu ñëw rey Aziz Dabala léegi damaa bëgg ñu wax benn affaire boo ñëw rey Aziz Dabala ñooñu ban ban ban affaire lañ am ak Aziz ba ñëw rey Aziz Dabala man duma dem fu sama soxla nekkul man fu ma dem rek daa lu mu fa yóbbu léegi bu fekkoon ne ñooñu ñëpp dañoo dem ba ci kër Aziz Dabala ñu rey Aziz Dabala te ñooñu ñëpp seen téléphone yi fekkuñu fi benn numéro Nabou Leye amul benn liggéey bu muy liggéey ak ñooñu ñooñu nekkuñu ay livre nekkuñu ay théâtre nekkuñu ay fecckat nekkuñu ay làmb làmbkat nekkuñu ay simbookat déglu leen bu baax li ma leen di wax ñooñu nekkuñu ay ay ay lii nii mu tudd sax ay marchand ambulant nekkuñu ay mason déglu leen bu baax li ma leen di wax kenn ku ci xëy di liggéeyal Nabou lay amul wala kuy liggéey lu jege ci famille bu lay amul léegi lan moo waral Nabou Leye ñi fekk ay appelam ak ñooñu changeante appel yooyu noonu ci different time ci bokk te te nekkul benn dee boobu noonu kese léegi lan moo waral loolu léegi loolu duñ ko laajte Sénégalais yi nag ñu wax ñu ko. pourtant loolu Pape Ndiaye mi yéegoon fii nii Pape Ndiaye Walf xam na ci dara ba wax na ko fii nii wax na ko fii ba mu leer ah léegi lan moo waral mu fi ñu fekk ñooñu ñëpp appel yooyu yëpp si téléphone na bu lay te loolu yoon xam na ci dara gis nga ma wax leen benn affaire. ñu yor dossier bi ñoo leen gën a xam lan moo nekk ci dossier bi mais pour ñu dugal ko ci nopp Sénégalais yi loolu mooy problème bi waaw loolu mooy problème bi Aziz Dabala ñu ko ci ay affaire dafa xam dara ci politique wala dafa xam dara Sénégal wala dafa def nii wala dafa nekk milliardaire wala dafa dafa am nu kenn amul li tax ñu rey Aziz Dabala xam nañ ko wàllu en moo ci nekk waaye dafa am loo xamante ni tey dafa dugg ci problème boobu noonu mooy Afif am na lum xam ba pare te Nabou lay xam na loolu Nabou Leye xam na loolu man loolu rek laay laay laay laay laay laay laay bañ dégg ay Nabou Leye ci biiti la nekk ay Nabou Leye dinañ ko dugalaat ay Nabou Leye dina tëdd lii famem ñëw la ko gën a xam gis nga gaay yi ci lañ nekk jamono ji ñu toll gis nga bu ngeen ko xamoon bu ngeen waree dugg ci panelu ambassadeur sax da ngeen koy xoolaat yàlla xam ko panel bii nii wax bii ñuy wax nii dafa dépasser panel bi billah wallahi tallaay Sénégal moo nekk dëkku waxkat dëkk boo xam ne dañuy wax par la force kenn mënu leen teree wax muy sëriñ su ndaw seeg ñëpp mais lii ah kan ngeen dégg mu wax ci kan ngeen ko dégg kat ngeen dégg mu wax ci lii rek mais gis nga bu bula leeree na yow teen bii foofu ngay dem tànk di fa naanee wallaay doo fa doo doo fa sànni lu tilim loolu moo nekk ci gaay gaay yi gis nga problème bii nii bu ko lobby bu lobby nekkul woon ci ginnaaw ba tey ku nekk yaa ngi koy dégg mu taxaw ci télé yi di wax wala mu yor téléphone am di wax wala muy wax côté bu ko neexee lii man maa leen ko wax am na ñoo xam ne tey boo leen tàllaloon micro na leen deewu Aziz Dabala bi non waxal bu tudd Aziz rek bul wax sax dee bi am ñoo xam ñi ngi ci Sénégal di nekk ci télé yi di def interview yow boo toogoon tey benn interview ngay wax di wax di wax di wax di wax di wax ba tudd Aziz Dabala xam nga lu ñu def eh tëjal ma micro bi eh génnal foofu yow loolu waxuñu loolu indiwuñu fii wala kooku dee na nañ ko ñaanal loolu lañ lay wax parce que xam nañ ne bëgguñu débat boobu noonu mu continuer gis nga ma jox leen exemple bi xam nga fan la. arrangé wu arrangé wu leen ma jox la exemple bi xam nga fan la ma jox la exemple bi am na interview boo xam ne El Hadj Bécaye moo ko doon def bi waa ji waxee ba tudd Ousmane Sonko dañoo Macky Sall la da ngaa war a wax ci Ousmane Sonko ñu bàyyi ko nañ bàyyi Ousmane Sonko lii ak lii daf na eh booy booy booy arrêté lii eh tëjal ma micro bi déglu leen bu baax li ma leen di wax. te tey Ousmane moo nekk président tey boo doon wax ci plateau boo tuddee Ousmane Sonko dañ lay yokkal volume bi ba pare yi gën laa yaatal siège yi ba pare gën laa taalal caméra yi affaire bi loolu ko Sénégal noonu lañ mel gis nga li nga xam ne ñoom fa seen mbir nekk fa la ñuy fa la seen loxo di nii yàlla xam ne ne bu fekkee yàqu-yàqu mu nga fa du nangu nga tudd ko mukk loolu mooy Sénégal lobby lobby yi lobby yi ngi lu affaire bi am fii nii yéen lii lii dafa lii dafa doy waar rek mais bàyyi leen xel rek bu leen bu leen bu leen bañ lu leen di gars di wax xam nga nit ku nekk boo gisul preuve rek da jàpp ne yow gisuloo preuve ok man moom loolu rek la amoon lu may wax mais Nabou lay moom ah instant yi nii fi mu taxaw dafa dëgër de jamono jii ñu toll nii la illa Nabou Leye dañ koo gën a sécuriser sa sii waaw léegi so man yow laay posé de mën naa ñëw wala góor yàlla waaye yéen ah. kay bu amee kuy siif na ñëw balaa maa posé so ay question waaw bu bu rek ne ma ne ko nu koy waay di waxee góor yàlla maa leen di nuyu bu baax bu tàngee neex mm-hmm. ñëwal ñëwal ayo ñëwal euh, maa ngi leen di nuyuwaat bu baax uh-huh. waa di wax que ne rek euh, ami béti béti sax laa bëggoon béti kaar yi ñu nekk ni dafa danse dafa doy waar parce que li tax mu doy waar xam nga ñun ñii defuñu dara ci ñun ñu ngi toog suñu kër kenn wowuñu uh-huh. moom dafa dem ñu woo ko mu ñëw demaan ñu woo ko troisième fois bi ci lañ ko arrêté yóbbu ko kon ñun justice bi ñoo ñu bëgg a dofloo wala nabu Leye moo ñu bëgg a dofloo wala ñun ñoo bëgg a dofloo suñu bopp parce que àddina ñun fi ñu toll nii nit ñi duñuy duñu sos dañuy yokku comprendre ngeen ñoom nee nañ bornage lañ ko jàppe bornage motax ñu japp ko ñu ne ñom biñu démé demee leen enquête kenn ku nekk ci li ñi ñi wax ñi ñi ñoo ko wax man waxuma ko ñu ne bi leen tégué ci benn table ronde ki ki ne xamuko ki kii ne kii xam nga ki ñu ne xamuko ko bi ñu téléphone ko ñu composé ñu ci fekk sa numéro morom kon c'est-à-dire foofu xamante am mais ñom ñoo ko jàppoon ñoom ñoo ko bàyyiwaat kon ñom ci seen biir kase la dañ koy wax ta dé ñom ci seen biir kon peut-être que ñoom ñoo manigancé li ñu manigancé man tey toog naak nit tout récemment mi ngi ci télé bii di wax magum jëmm la kilifa la ñuy wax ci cas boobu dani dani ma diw ma ne ko naa mu daal ma gis nga bulletin nul ngeen di am ñëpp nag est-ce yéen a may dégg bulletin nul ngeen di am parce que li tax ngeen di am bulletin nul mu ne ma am na koo xamante ni ñu ngi koy tudd naan diw diw diw mu ne ma kook sax du cerveau bi cerveau bi diw la ma ne ko bàyyi leen loolu bàyyi leen di dofloo nit ñi tay ngeen ne cerveau bi ki la tay ngeen ne dafa am bras long tay ngeen ne dafa am lee yéen ñun ñun ngeen di dofloo et yéen ngi comprendre kon man j'aimerais bien que ñu xex xex bi de te gis nga yalla dafa and ak ku dëggu te billahi wallahi dinañ am ndam parce que yalla du seetaan yëf ju bon non non dañuy am ndam inshallah dina metti trop nak pour ñu am ndam ni dina metti trop trop trop dinañ xex xex ba naaw pour ñu am ndam parce que àddina moo demee noonu bras long moo doy waar dafa garaaw luñ ci mën dañ ko ciy def parce que ñu duñu ay ragal ndax ñoom ñoo ko dugal ñoom ñoo ko génnewaat te comme ñoo ko dugal ñu ñoo ko génnewaat ñun dañ ci def li ñu mën rek waslu àq ak ki dem ndax ki dem moom xol bi rafet na rafet goo xamante ni ku téye ci yëfam sa ndax barki Serigne Saliou Mbacke yàlla dina la dimbali sax ba li nga bëgg nga am ko mais bi ma déggee bulletin nul ngeen ni ma damaa xaw sax ti damaa choqué xëy na ñun xamuñu li ñuy xaar. te yàlla ñu ci dara xaar loolu ñu am ci jàmm rek ak salaam mais ñoom ñi nga xam ne ñoo sekk seeni yëf yàlla nañu yàlla musal ci ñoom. dinañ wax daal affaire bi doy na waar doy na waar mais le combat continue j'espère que yàlla dinañu defal jàmm ba ñun liñ ci bëgg yàlla sottil ko ba keneen ku jóg pour def crime sax di nga xalaat ni bu ma defee crime bi kat lii moomu ciy fekk parce que tey am na fi ay gars yu bëri yoo xam ne dañ leen fi rey mais ñi leen ku ci melni khasimu ba bi mu rayee xale bu jigen bi ridus dañ ko japp keneen ki Touba dañ ko japp keneen ak keneen et de suite mais li ni rek mu teñ nit ñi kon li ci laxasu doy na waar ah doy trop mais yal yalla def jam yal yalla sam ci barki Serigne salio ngeen balma ma. <coughs> alaykum allo. allo waaw waaw. allo oui. waat ami nuyu ki El Hadj ñu fi nekk ah dama la doon wax man flyers yi ah yi flyers ma koy defaral man dama am machine mais sama machine dafa am problème mais am naa kenn ku ma koy defaral am na kenn ku may defaral tamit ko ñu sàmba léegi dama kii bii nga def nii bu bees bi loolu laa bii nii moom lay wax de waaw am na am na ku ma woo moom it kii Ndour waaye. kii waaye ah. Ndour waaye kii nee na ma nee na am nañ am nañ ci defar moom pour suba. mais bu fekkee am nañ keneen am nañ yeneen yu bari tam mën nañ koo kii quoi pour Samba yi récupéré ko suba. bii nii bii. waaw bii nii bii ngeen jël bii. waaw loolu laa doon laaj sànq duggoon naa pour laaj la loolu. parce que flyers yi parce que des fois mën nga romb buntu ensemble xam nga commencé nañ liggéey comme tey nii su nekkoon am na. mun da ngay sànni da sànni foo romb waa pale fi ñuy añee. bi mhm. di pil nga sànni affaire loolu moom mun naa ko jaayante loolu amul problème. baax na incha allah waaw macha allah. Ah. loolu laa ñëwoon kii sop sop sëriñ Muntaxa nee na am na yu mu defar moom moom it am na yu mu defar. xam naa da nga bàyyi ko ah, woo Samba woo Samba Samba ñëw récupéré ko moom it récupéré ko man damay liggéey dafa am ci benn kii bu may liggéey mais man pour ma publicité man loolu laay def man te gis naa ne dafay gaaw torop mhm. loolu waaw man mhm. boor ensemble fu nekk nga sànni di nga leen jox signe boo xamante ni ñoom dinañ xam li si def waaw yàlla rek a fi ne nag mhm, li keroog ba yàlla di def wax merci beaucoup allez bye. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. léegi gars yi de xaaral ñu déglu ñu déglu interview bii nii xaar leen. la rue ni penser dans la rue c'est pas comme ça le droit ñun dañuy enquête à charge et à décharge bu demee phase pour le judiciaire ñoom dafa am ay yu ñu xool ay éléments de. J'adore, même ma tu vois. gaa yi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar ñëpp kaw ba ci suuf xam nga am na ay jamono dugg naa fi ni affaire bi bu jaree joxe bakkan dañuy joxe bakkan gaa yi naan bakkan mais suñ dëkk bi bu fekkee dañ ko bëgg a régler il faut nu am fit comme soxna si li wàcc ci léegi li mu wax affaire bi il faut newul amul ne di yox yoxi jo li wax comprendre naa ko mais fenn rek laa nangul ak moom mu ni panel dépassé na panel bi dépassé wul panel bi panel bi ay nité ci nek yu yuy xalaat am bop su dëkk bi ñoko wara xex dëgg ben la dëgg kenn mun ko changé ben dëgg fi am mu na nu ku wara jakkalo mom jàkkaarloo moom dañuy jàkkaarloo moom mu jaral nu suñ yi parce que bu newul ci dëgg newu nu ci dara affaire bi dépassé wul panel bi panel bi ay nit ci ne fi la waxtaan ñun ñëpp waa waa Sénégal nu génn bu jaree joxe bakkan nu joxe ko parce que ku dee ci dëgg wàcc ca Aziz ci dëgg la nekkan fii amul kenn kun fi ragal ay nit la nu ni nit kon ñoom ku man génn senegal nit nga kom ñun waaw ay doomu aadama dong lan nin amee ndey am bàyyi ko amee ñu juddoo ci kër yi yaroo ci kër yi muy ñu ne ci biir yi ak chef yi ak ñay atteeg ñëpp ci yam itali gii li fi am booy buñ génnee naar bi ñu fi rey barki dem la noo taxaw jàkkaarloog police yi affaire bi bu buñ waree dem kaso dañuy dem kaso buñ waree dee dañuy dee mais nan na jox résultat yu wóor yu leer bu fekkee ay góor a ngi ci ñun wasalaam maa ngi si suuf di déglu ku baax ma sœur maa ngi lay ziare bu baax vraiment li nga wax dëgg la quoi mais côté bi may waxee boo déggee ma ne affaire bi dafa dépassé panel bi maanaam ñun dañu jàppee affaire bi ak nu mu demee moo demeewul noonu comme sama wax laa am maanaam ci waxin laay waxee quoi comme bu fekkee dangay am dégg-dégg nga xam fi may waxee mooy nit day nekk ci benn jëloo ne lii mën na yem suba suba ñu leeral ñu ko comprendre mais yow tey yaa ngi ci topp te xamoo suba la xamoo ginnaaw suba la xamoo sax next year la léegi boo xamul next year la wala xamuloo next two years yow affaire bi daf lay dépassé foofu laay waxee quoi pour nga am li may waxee comme ñu amul dégg-dégg côté boobu tamit mais pas panel bi ñu fi nekk dañoo matul luñ doon wala dañoo xamul lu ñuy wax wala affaire wala man foofu lay waxee voilà man foofu laay wax. am na ñoo xam du seen moyen du fi yegg si. parce que dossier bi da ngay xam ne dossier bi ñu li ñu bañ a tudd yor monin wala xaalis wala yu milliards. Mhm. mais il faut ñu nit ñooy taxaw jàkkaarloo ku man di doon. mu def na koy jar bu fekkee li ñuy woote dëgg la. Mhm. daa mhm. exemple rek bu mu leen jox du déglu ngeen amba déglu ngeen euh, euh, euh, avocat bi bi bi Aziz bi li wax. déglu ngeen ko n'est-ce pas bi mu waxee moom ba ne biñ bàyyee Nabou Leye n'est-ce du déglu ngeen ko li mu wax kon léegi war ngeen a xam ne yéen dossier bi li ci nekk du ay caaxaan parce que comme avocat bi nga xam ne tey moom am na droit di lu lañuti dossier clientam am na droit di wax ci dossier bi si nu ko neexee parce que moom moo nekk dossier clientam ok mais déglu ngeen ko bi mu waxee ba fenn fi dafa arrêté teg foofu ay borne xamal la leen na leen dossier bi nekkul dossier boo xam ne da ngay ñëw rek wax ko num la neexee parce que ñun yàgg nañ fi xam nañ dossier bi lu ci nekk bu baax a baax a baax li nekk ci ginnaaw dossier bi xam nañ ko buñ ne la dossier ba pare wax la nag li nekk ci ginnaaw dossier xam nga kon loolu bokkul ci biir dossier mais buñ ne la li nekk ci ginnaaw dossier mooy ki nga xam ne ñi nga xam ne tey ñooy ñëw di protéger client bi nga xam ne moo waral ñu jàpp mooy dossier bi ki nekk ci dossier client boobu noonu mooy bi nekk ci ginnaaw dossier bi li nekk ci ginnaaw dossier bi nag moo am doole loolu moo am loolu mooy problème bi dossier bi du problème de gis nga dossier bii nii dossier bu ko gën a garaaw mu ngi Sénégal gars yi lijjanti nañ ko même pas une semaine deux semaines ñu teg ko côté Sénégal yi nekkaat ci leneen mais nama ma gars yi wax rek képp ku nekk ci biir panel bi wala nga yàgg déglu panel bi musoo jàpp ne lii dina dem deux mois te leeraluñ la am na ñoo xam ne nag jàpp nañ ne bala ñoo génnee kenn wala bala ñoo enquête bi daanu dina dem trois ans parce que yàgg nañ a gis crime yu mel nii day dem dañuy téye seen borom lu mat deux deux ans trois ans quatre ans ñu doog na a wala cinq ans max comprendre mais am na ñoo xam ne mosuñu ko foogee noonu mais rumeur bi mu àndal nag moo waral ak li waral ñu génnee Nabou Leye nag te waxuñu ba tey lan moo waral ñu génnee Nabou ak ci yan fee leen jàppee woon na bu lay tamit loolu mooy waral parfois ma ne ñun ñoo jàppeewul dossier bi affaire bi ponkali si boppam lañ war a jàkkaarloo loolu mooy problème bi sénégalais yi si boppam nit yi léegi nag ñoo war a génn bu fekkee xeex na mu dem ci sëriñ mm-hmm. sëriñ général yi ñu dégg ko affaire bi il faut mu bu dee am coow mu am coow parce que duñ ko ci bañ léegi waaw sëriñ si dina génn wax mm-hmm. ak kooku lu mu am doole yàgg-yàgg day daanu d'accord léegi xam nga moo ëpp doole waaw xam nga xam nga xam nga xar baax a man xërëm fii yàlla yàlla rek am doole ma wax la benn affaire am na koo xam ne mos naa génn def interview ci problème bu mel nii nekkul woon Sénégal moom benn jigéen la di protéger benn góor moom woowoon nañ ko ci dëkk bi mu nekk de demoon na wuy ji police boobu ba léegi kenn déggaatu ko mu génn waxaat ci benn panel te du ko defaat nag buy waxaat tamit day wax loo xam ne lu mu xam la wala mu wax ci ndànk wala mu am côté bu mu waxee mais pas nam doon waxee bu njëkk kon moo lay xamal ne dossier bi gis nga ñun ñu nekk fii ci kaw panel bi yàlla nga nekk ba États-Unis xanaay nga nga nga nga mel ne ñeneen yow dëkkuloo dëkkuloo Sénégal yow so yoon nekku ci mais boo xamee nday mbilay dossier bi bay tudd ay tur ba tudd ñu nekk ci biir foo mun a nekk gars yi dinañ def ay enquête ci yow dinañ teg procédure bu mag a mag ci yow one week wala two weeks da nga am information yi leer nañ ne gars yi ñu ngi sa kaw moo tax benn jour Aboubacar day dugg fii mu ne képp koo xamante ni sa fit mayul la nga dugg wax ci dossier bi parce que buñ ne wax ci dossier bi rek dossier bi buñ ne wax ci rek da ngay tudd li nekk ci biir dossier bi te li nekk ci biir dossier bi max la benn affaire boo amul benn garantie yaa ngi biir Sénégal soo ko tuddee boo xëyee tudd ko balaa jant beesoo gars yi dinañ lijjanti yow nan nga def ba tudd lii ak fan nga nekk. parce que gars ñu ngi ubbi seen nopp taal seen i téléphone xippi seen i bët ba pare yor seen crédit di woote côté bu nekk musu ñoo xëy wala ñuy nalaw te xamuñu lan la ñuy wax ci ñoom ki def nag kii wax rek lay bañ affaire bi loolu moo nekk ci dossier bi mais panel bii nii panel bi leen def ci dossier bi loolu loolu loolu waxuma la dara waaye affaire bi def ci dossier bi laay bi daa def lu garaaw de kon nag ñu nekk Sénégal xanaa dinañ ñu wër dinañ xëy dañu wër suba ba guddi jot am déet parce que ñiy wax ci dossier bi bëri na. yow yaa ngi wax si dossier bi nga nekk nga Sénégal waaye yow xamoo reenu dossier bi. comprendre dugg naa fi ne kenn xamu ko reenu dossier bi. kenn xamu ko. parce que euh, Ella euh, kii bi kii bi kaay ma wax la baal ma euh, avocat bi bi mu génnee xamalal bi mu defee sorti nee na. moom dafa pare physiquement ak moralement nee na pare na ci zaahir pare na ci baatin moom loolu la wax xam nga ne kon man loolu seetaan naa ko ndegam moom moo mën a pare ci zaahir ak ci baatin pour dugg ci biir ñoom asama sama ñeneen ñi ku ci dugg daal pare nga ku ci parewul rek na nga génn reculer daw. dem waa waaw loolu mooy wax ji de soxna. yëpp pare na yow yow. yow du leer na ne avocat bi moom moom dafa xam li nekk ci dossier bi looloo tax mu ne la moom pare na ci batin pare ci zaahir parce que nit ku loo xamul doo ci dugg avocat bi bu xamul woon dara ci dossier bi du ci dugg du ci wax comprendre waaw loolu la expliqué boo ko joxee sax voilà waa léegi dama laa expliquer comme ñun ñu nekk ci panel bi xam nga avocat bi nekkul ci panel waaw mais ñun yàlla moo ñuy sàmm rek waaw mais jo xam nga lan mooy problème bi jo may ma deux hmm. minutes xam nga lan hmm. mooy problème bi ñun dugg na si dossier bi hmm. ci Aziz lañ dugg ñun dañuy taxaw ni dañuy jox résultat assises yi parce que Sénégal police bi ni mu toll ak doole jën am mënunoo te trois mois joxuñu résultat yi parce que xam na lan mooy police Sénégal duñ ay dof waaw ñun duñ tudd hmm. kenn duñ tudd turu kenn mais am nan droit génn taxaw jàkkaarloo ñoom ni leen résultat yi assises yi leen bëgg ngeen bu fekkee subaa ngoon yéen a ngi liggéey war ngeen noo jox résultat ay par force ndax suñu droit la am nañ si droit bu ñu ci rayee muy loolu ça marche pas comme ça, Doud, ça marche pas comme ça. allah <laughs> la de. pam temps ça dépense temps temps Massar Massar sénégalais nga quoi président ana magam Abdoulatif Coulibaly Abdoulatif Gueye anamu ana Abdoulatif magi bu ana de Lamine ëppoon ñu visibilité yoroon teleem doon xeex suba ngoon guddeeg bëccëg masaar yow est-ce que yow sénégalais nga sax Massar yow Massar Mame Matar Gueye bu Massar def conférence de presse mbooloo ñoo ko daan wër ana mbooloo mi ko daan wër. mais ñoom duñu Sénégal kon ñoo xanaa mais xanaa duñu Sénégal rek. waa xaaral non sama waay bu ma tuddal kenn bu ma tuddal kenn ay sénégalais la comme ñoom ba mu wax ba pare yow xam nga tey yow dafa mel ni yow. maîtriser wu lu bëri ci àdduna ni muy doxee xam nga tey Sénégal li fa nekk dëkkul Sénégal ci kaaw bi ñu nekk nii la dëkk ñëw sanc si Sénégal xam nga zo ma ngi leen di wax benn wax bu am solo léegi léegi déggu leen ko nee am na foo xam ne boo fa duggee ci kaw bi sax boo fi nekkee si ngay gën a yomb tee barki alxuraanu karim parce que racine bi fi la nekk wa ragaluma ku ma ragaluma ku ma rey. Massar ku ma dee si dëgg wàcc. Massar ma ay téye yàlla ragaluma ku ma fer jeng sama tur lay joxe Sénégal laay wàcc aéroport ba du ku ma ci rey bax na kuma ci téye bax combat bi combat inconnu la ay inconnu ñoko ko xex ba jële ko biir senegal mais nekkul lu doomu adamu di jaay dëgër fi tak di di rek u fësal sa bop doo si sori. du fit amaana suñ du fit ñaari nit lañ ray ñaari nit lañ rey. Massa di du fit du arme du khadar du fetel du dara. waaw ah, yow kon yow xeexal ta xeex bo man ni lay xeexe man. ay. sa rek lay to très bien. Massa daa tagu zola de. ma ne la ambassadeur bi mm-hmm. dama ko rate léegi léegi xaaral xam nga xam dafa am lu ko naqadi si xolom te Massar mooy góor yooyu nga xam ne mooy borom kër yi nga xam ne ñoom luñ bëgg def si saa si lañ koy bëgg def duñ rendre compte dara mais su paasee dañuy xool ndax niñ ko defee baax na wala baaxul mais après c'est trop léegi problème bii nii dafa nekk problème boo xam ne lépp koy gars yi dee leen fi pour fal ay président ak ay fal ay ministre ak député ay népit ay nit xeex nañ fi ba dee pour fal ku xeex ci Aziz ba dee wàcc léegi waa léegi xaaral ma waxal la léegi nga mën a ma am lu ma la expliquer gis nga ñi ngay wax ne ñooñu ñoo xeex ba fal ay président ba fal ay député fal ay ministre est-ce que ñooñu dégg nga ñu leen jàppoon ñu leen rayoon ba léegi ndax biñ toogee rek si saa si dañoo dem jàppi ñooña directement ñu leen rawet mais pourtant ñu ngi ci projet boobu noonu de mais step by step la nekkul lii boo si dee fekk assise ji lii lii boo si dee fekk assise àjjana maanaam maanaam Massar Massar ma waxal la benn affaire xam nga tey dafa am benn façon dee boo xam ne boo ci dee dalay leer ne lii jihaat la boo ci dee da ngay fekki da ngay dem àjjana mais xaaral loolu laa mm. bëgg su ma yeggee borom bi maa ngi nii assis laa doon xeexal ba ñëw naa loo may def def ma ko. <laughs> waaw waaw mais. waaw doo leen bàyyi doo mu xare. waxuma loolu léegi Massar day xare. waaye koy jaral jëloon ko duñ dem fenn. non xaaral eh, nga Massar man yow laa àndal boo bëggee ñu xareel. waa léegi damay xare ji de. léegi xaaral léegi xaaral fii ñëpp dañuy xare mais taxal ma waxal la benn affaire gis nga garab gi boo ñëwee fekk mu taxaw zoo yow da ngaa bëgg a de da a àdduna de pare koo sa pour xare. xaaral rek waa léegi xaaral rek ma wax leen tey gis nga boo ñëwee ci garab nga ne da ngay yéeg nga jaar ci taat bi comprendre nga. waaw mais def nañ ko am nañ avocat am nañ avocat. avocat bi du mooy xel léegi taxawal. oh yow xamoo ne yow avocat bi yow mi bi nga taxaw yow yaa gën a garaaw avocat bi. avocat bi moom lépp xel moom na ci dem na dem si dossier yi ñun ñu taxaw ñun. jàkkaarloo ñun a jàkkaarloo yow daa. daa am lu ma la bëgg a wax loo xam ne yow nanguwuloo ko dégg ba tey te boo amee dégg-dégg di nga xam fan laay waxee pour ñu waxtaan bul ma siif boo ma siifee rek yow doo bëgg a xam fan laa jëm comprendre da ngay bàyyi ba ma yeggali nga xam fan laa jëm gis nga avocat bi nga xam ne am na droit ci ci ci ci ci ci dossier bi am na droit dem fekk ki yor dossier bi mu laaj ko dossier bi nga xam ne moom lay taxawu pour clientam bi avocat boobu noonu tey nekkul day dem forcément pour mu jot ci dossier bi rawatina yow mi yéeg ci kaw panel bii tey nga ne forcement da ngay xam ki rey Aziz Dabala ak lan moo tax ñu rey ko nga fi may waxee exactly léegi tey avocat boobu noonu voilà léegi nag tax ma ne la waa léegi moo tax ma ne la moo ma ne la ñun avocat bi bu demee bu joxuñu ko dossier bi ñu dem ci sëriñ bi ni ko nag ñun Aziz la ni xeexal avocat bi expliqué sëriñ bi masar xaaral déglul gis nga sëriñ soosu noonu ngay waxaat ak noonu sëriñ soosu ñoom yi dafa am benn côté boo xam ne duñ fa mos a génn parce que gis nga nitu diine ci diine lay mën a wax ñi di ko déglu mais boo wàccee sa ànd ànd boo dem da ngay fekk borom mu toog kenn ku ne da nga am cër boo xam ne da nga koo am ci Sénégal gis nga ki fi nekkal justice bi kooku moom justice bi la fi nekkal mais gis nga ki fi nekkal diine ji muy ku ne Tiwaawan wala Touba wala Njaasaan wala Kaolack ñooñu noonu ñëpp wala Euh, yoof xoma limaamu laa xoma nañ lañ koy waxee foofu noonu ñëpp kenn ku ne ànd bi mu toog bi la bi bàyyam nekkoon mu ñëw toog fa tey du ko nangoo wàcc parce que bu demee ci beneen ànd day fekk borom mu toog ci mais moo tax kenn ku ne danga am rôle booy dox ci dëkk bi nga xam ne mooy Sénégal yow am ñoo xam ne danga leen di jiite am ñoo xam ne dañoo topp ci ginnaaw di la déglu bu ñu lay déglu nag da ngay nangoo dégg di joxe lu ñuy déglu tamit wala di joxe ñoo xamante ni tamit dañuy am dégg-dégg loolu mooy wax bi gis nga bu ñu la dégloo di la dégg di jiital la da ngay xam fooy teg sa tànk bu ñuy wax tamit nga xam ñan ngay waxal xam fan ngay waxee xam ñan ngay tontuwanteel parce que fii tey Sénégal lu fi waaye wax dinañ la waar muy sëriñ bu mag beeg muy keneen ak keneen a fi boo fi waxee loo wartu wax bu ëllëgee nga dis gone goo xamante ni ba mu juddoo baayam yarawut yaayam yarawut moom du ñëw yaru mu toog ci penc mi mooy TikTok bi wax lu ko neex te kenn mënu koo weddi te parce que ci ki mu ko déggee la moo tax booy wax rek nga xam nooy waxee mooy kilifa yooyu nga si bëgg dugal ñoom dafa am côté bu ñuy waxee buñ fay wax nag ñoom benn stratégie la ñuy demee mais pas génn comme yow ni nga ko bëggee mooy lan wax directement adduna bi yëpp di ko dégg ñu ne dan moo tax yow gouvernement bi waxoo ci deewu Aziz Dabala pourtant ñooñu bala ñoo wax loolu am na millions de personnes yu dee afa Aziz Dabala yaa ngi comprendre te ñooñu génnuñu woon waxee ko noonu waaye def nañ li nga xam ne moom la ñu war a def jël nañ xaalis bu bari dem jaalee ko ñi nga xam ne ñoom la seen famille dee ñoom ñoo am ay problème ci yooyu ay lakk-lakk wala ay accident affaire yooyu loolu yëpp dégg nga ko ñooñu loolu rek lañ man mais ki nga xam ne dañ koo tëjoon prison tey ñu bàyyi ko suba doo dégg benn kilifa bu génn ñu ne lan moo tax ñu bàyyi diw te lii leerugul doo ko dégg bu dee loolu nga bëgg dégg moom doo ko mës dégg ci àdduna beneen bi ci des wàllu avocat boobu noonu ngay wax. avocat bi li ko war mu ngi ci. waaw mais xam nga problème bi ñun bu fekkee mbooloo lan. Hmm. dëkk bi day yëngutu rek. Hmm. ca dëkk bi bu yëngutoo sëriñ si dina ni gone yi li ni coow lan la loolu moom par force la parce que waa ji hmm. am na ñoo xam ne bu fekkee ni nga waxee ñoo ne si ginnaaw il faut nu takku ñu nit mu jaral nu ko mais buñ parce que dañu koy jaral ah. boobu dëkk bi bu yëngatoo xanaa kilifa dina dinañ faaw nu wax parce que dinañ xale yi lu ñuy coow ca boobaa noonu expliqué dinañ xam ne ñun ñoo ne si dëgg dëgg boo si nekkee nag jërul ngay ragal dëgg boo si nekk amul TikTok amul Facebook dëgg boo si nekk jërul ngay ragal li ni xeex dëgg la gis nga gis nga olof daf ne ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaay ci ñaay ci ñaay comprendre nga loolu nag waxu olof la boo xam ne bu boo amul dégg-dégg doo xam fan la koy olof bi waxee gis nga tey golo boo nekkee moom ci àll bi moo la dàq yéeg moo la dàq daw moo la dàq lépp boo deful ndànk mënoo te léegi nag bu la njëkkee gis. non dama gis mooy comme avocat bi fi mu nekk nii. jour rek gis nga avocat bi fu. taxal ma wax la nekk nii. may ma déglu loolu ay olof ay teg xoola ay waxtaan lañ la daal doon jox rek. comme côté avocat bi lay ñëw non xaaral. Massaer may exemple laa la doon jox. da déglu mu expliquer di nga comprendre nga Massaer. voilà Massaer exemple laa lay jox si avocat bi avocat bi buñ ko jiital ba pare bëgg koo fakkatal avocat bi am na droit di wax di dox di liggéey ngir kiliyaanam mais bul fàtte ne avocat bi dafa am kilifa. kan moo nekk kilifaam mooy ku téye dossier bi war koo teg ci yoon su demee ci moom li war ci digganteeg moom lay dox mooy lan dafa ñëw tey avec fair play pour xam lan moo nekk ci diggante moom ak client bi lan moo si war a liggéey mu ñu jox ko dossier bi mu caytu ko xam lan ak lan la ci war a def ak nan la ci war a waxee mais bu fekkee ne comme yow nii ngay waxee bu dee avocat bi yéen ñaar yéen a même yéen a doon même jikko su demee du jot ci dossier bi parce que foofu dañ ne gis nga lu la sa lu la lu la yar mayul leneen mënu la koo may te gis nga boo ne tekk wan la yoon tekk wan la yoon. yaa ngi dégg wax boobu noonu. droit waaw mais mais bu fàttali rek mais droit tamit tekk moo tekk la gis nga boo boo ne tekk da ngay xam lan muy droit boo demee ci droit tamit tekk ngay def. ba droit soxla la parce que da fay fekk yeneen dossier yoo xam ne bokkul ak dossier bi ngay wut te yow sa dossier mënoo ñëw tey tey tey ñu ne la sa dossier bi nii lañ koy doxalee nga mu fekk fa yeneen dossier yoo xam ne am nañ important ñoom it parce que kenn ku ne am na lu la amal important am na ñoo xam ne ñii dañ leen a sàcc am na ñoo xam ne dañoo tooñ seen doom tëj ko ci kaso bi am na ñoo xam ne dañoo rey seen doom ba pare ki ki ko rey munuñ munuñ ci moom dara mais ñi am moom problème ñooñu lañ mujj tëj ci kaso bi mooy ñu tooñ la nga fayul sa bopp am na ñoo xam ne dañoo rey seen doom ba pare ñañ rey seen doom famille boobu ñëw rey kooko ñooñu lañ wëlbitiku tëj ci kaso bi mooy buñ la tooñee bul fayul sa bopp te yow ni ngay waxee nii buñ ko defee rek dañoo fayul suñ bopp parce que dëkk bi dafa am yoon dëkk bi dafa am yoon mais ak manifeste bi manifeste am nañ droit def ko non copain bi yéeg dani manifestation bi waruñ ko wara def lu tax ba waruñu ko def hein ba paré mo rax ci doli nan amna enquête yo xamné ay ay cinq ans lay jëm. kii Aziz bi tax ko ngi la amna enquête yo xamné kan mën na dem ba 10 ans am lool moy faté len ko. non non da ngay déglu Massayer tay ji ni déglu ma ma expliqué la tay bu doon dama par exemple kenn day jaay dorog yaangi ngi dégg muy jox ay xalé ci koñ bi ci koñ bi di jaay léegi nak ñuy japp xalé yoyu xale bi ñu ko jàppee tey bu toogee deux ans soog a leen wax ki koy jox dorog bi keneen ñu di leen jàpp mun na leen a jël dix ans pour ñu xam kan mooy ku ki nga xam ne moo leen di ñëpp looloo tax ñu ne la yenn investigation yi li mu wax yenu na maanaa gis gis nga ñoom ñi doon def seen investigation tant que amuñu dara lu leen ci leer duñ ko tëj donc mun na leen jël dix ans parce que mun nañoo dem ñu xam ne lii di ay presque vingt personnes bokk nañ si

day jël temps pour mu pour mu ñu leeral ko. non man moom gëm bu Aziz bii nii gëm ma loolu. bu Aziz bii bu bëggee mu leer mu leer. dossier bi bu bëggee mu leer mu de service. Massa avocat bi nee na def na 36 ans de service. musul gis ñu jox nit liberté provisoire ci affaire crime te biti ñun tam Sénégal lañ juddoo. léegi rek na loolu lii am na léegi loolu loolu mooy lii Massaër di laaj nii loolu mooy am na lu si luus looloo tax mënagul leer. waa xaaral waa xaaral gis nga crime ah, crime waxuma la tey ñu jiñ la si tey complot de mais tey ah, bu amee benn lieu benn lieu bu am bu am bu rek ñu ñëw ramas ramassaale foofu ñu ramassaale la yow foofu duñ la bàyyi fekk ñu ba pare barki alxuraanu karim crime am fenn ñu ñëw di fa ramassaale lieu di crime bi ñu ramassaale la rek ramasse de waxuma la ñu sib sib soupçonné la de ñu ramasse ramassaale la foofu duñ la bàyyi fekk attew ñu ba pare mais tamit tamit dañuy waxante dëgg quoi musuñoo gis crime ñu ñu jox si nit liberté provisoire lool loolu la yoon mënta nangu ilaa yow mi diini abadan dañuy wax dëgg quoi foofu dañ nañ ci posto foofu fa benee quoi bu ñuy jàll si leneen nag ñu jàll si leneen mais loolu moo dul yoon wax ji loolu la rek diglu leen ñoom bu leen yóbboo rek diglu leen bu ñu xamee ne ponkal nga si waruñoo jàpp kenn eh, fii booy gars yi comme gel bi ñu muy wax ñuy jaay ay boon ak yooyu police yi ñuy jaay boon booy yu ndaw yi bu ñu dajeek ñoom du leen jàpp dañ leen di suivre di xool ponkal mi fu mu ne ñu jàpp ponkal mi ba pare doog leen di jël si ñoom mais dajale booy boo ja dajale booy booy duñ wax yow da ngay bàyyi booy bi nga xool fa mu koy jënd nga jàpp ko je peux je <laughs> xam nga sawa maam des fois dafa doon wax ne euh, lii sëb la nee na la ko bënn ma nga ca biir comme xam nga lii nii pour nit ñi nekk ci pour ñu liggéey ci il faut boo waree xam xaw ma hmm. boo waree dégg dégguma boo waree gis gisuma ma yaa may dégg bul xam hmm. bul wax bul dégg bul gis même en dehors de panel bi sax boo toogee sax bul wane ni yow la kii nekkal beneen nit. Mhm. pour nga nekk invisible wala ku ci nekkul invisible barki Serigne Saliou sama yaakaar dañ lay fekk dóor la bal nga ni tëll këpp te doo xam kan moo la rey. ah yow yow yow yow ñëw nga de loolu laa wax léegi nii de. non non non ela ela non man fi ma waxee ak fi nga ma tontoo mm. bokkul de man waxuma li nga wax ni amul de. dama ne li nga wax am na yaa ngi comprendre ndax mbir boo ci nekkee da ngay def doucement parce que ñun néew ñu suba suba suba dañuy bëgg xam li rey Aziz Dabala kut ko kut waxuma lool mais dañ ne justice pour Aziz Dabala ñun justice lañuy la ñu bëgg mais néew ñu man ah, man de dama part personnel man dama part personnel ñëwuma pour xam li sëb bi ci biir non non non dama ñëw pour xeex justice. pour Aziz pour que même man loolu laa wax. ah moom posé wu en paix man loolu laa wax mais am naa droit ni Aziz. je parle man lii laa wax. dama ne nañ ci nekk invisible pour bu ñu bëggee fu ma ci yóbbu baax na mais am na. man lu ma leen bëgg a wax daa am lu ma leen daa am lu ma leen bëgg wax ci dossier léegi daa am lu ma leen bëgg wax ci affaire bi ñu bañ sax tudd affaire dossier gis nga affaire bii nii li nekk ci ginnaaw am na koo xam ne mu ngi Sénégal exemple ma joxe benn nit tey bu fekkoon mu ngi Sénégal fii ñu nekk ci panel bi nii am na koo xam mu ngi Sénégal yow boo bëggee wax ci dossier bi te nga bëgg lu leer donc nga bëgg koo teg ci loxol Sénégalais yi dangay jaar ci turu kooku noonu te boo jaaree ci turam yow yaay biir Sénégal suba 24 hours du ko am yow yoon dina la wool te ponkal mooy dem. ponkal ci kaw ponkal mooy envoyé loolu pour ñu dox ko ba yow ñu woolu la waxuma la borom tour bi de yow tuddal tour boobu rek da ngay gis ku supérieur tour boobu noonu ponkal moom mooy fexe yow nan lañ lay woowee ci yoon te dañ lay teg loxo moo tax ma ne dossier bi voilà kon foofu laay mu ngi Sénégal pour ñu nekk invisible a ba keroog yëf yi di jeex